يا مكرم ديبي جاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بك جلدي نجلين دي نيو نيو بالإسلام دي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيان سنو mu defal leen jàmm te defal ñu ko defal leen yërmande te defal ñu ko defal leen barke te defal ñu ko di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk niñ ko baaxoo defee waaye di am mbégte nag ci ñëwaat ci jataay bi nga xam ne benn jataay la ci jataay yi nga xam ne daaira muqaddimatul xidma dana ko faral di def tàmbulee ci bi weeru bi weeru wi teroo di ko terale gan gu tedd googi nga xam ne sëriñ bi dafa wax ne ay bernde yi mu soxla mooy bernde jaamu yàlla ak topp yàlla ak njub moom mu tànn bernde bu am solo bii bokk ci yi nga xam ne dana ko ko bernde euh, tey nag am tomb boo xam ne ci lañu bëgg a waxtaan di tomb bu am solo boo xam ne ñi ngi ci biiram te buñ delloo sax ci li wax ne afdalul ilmi ilmu waqtihi xam-xam bi gën ci xam-xam yi mooy xam-xamu waxtoom kon day mel ne bi jàpp naa ne tomb bu ko gën a yitteel ci jataay bi ndax tomb la boo xam ne ci lañu nekk te nit ki lépp lu mu nekk war naa xam loola mooy lan nit ki lépp muy dund war xam loola mooy lan ndax dana ko dimbali nekkin wa dana ko dimbali dundin wa bi moy, li wax al baynal bayna salafi wal xalaf maanaam liggéeyu sëriñ bi te mooy ak murid eh, ci tëralinu thème bi nag mooy na ko mag ña daan dunde ak ni ko ñoñ tey di dunde waaye ci ni muy dikk ci waxtaan wi insha allahu yi dana dikk ci dees na leen xamal lan mooy ak murid ni ko alquran xamle bu tomb boobu jàllee des na leen leeral lan mooy ak murit ci bi Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu di woote liggéeyam bu tedd bii ñu mën a xam gën dégg lañ ci am lan mooy ak taalibe euh, bu boobu jàllee des na leen xamal mag ña nga xam ne bi sëriñ bi wootee ñoo ko wuy bàyyi seeni kër bàyyi seeni askan bàyyi lépp lu ñu amoon ñëw wuy si wooteeb sëriñ bi di diglu ay ndigalam mu leen di digal ñuy def ñuy wattandiku lépp lu muy tere sëriñ bi jaarale leen ci yoon ba àggale leen fa mu leen bëggoon a àggale te mooy ca yàlla ndax bi muy woote neewut ñëw leen ma yóbbu leen àjjana wala ñëw leen ma jox leen àdduna ñëw leen ma jox leen dara ñëw leen ma eggale leen ci yàlla ci anam googu la doon woote kon ñooñu ko toppoon nag ba mu eggale leen ci seen borom subhaanahu wa taala melokaan yañ amoon bañ toppee sëriñ ba ak bañ ko noppee gis melokaan ya nga xam ne ca lañ saxoon ñoom it ba wuy ji seen borom fekki sëriñ ba melokaan yooyu des na leen ko xamal su ko defee nag ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci nag tey jii di ko dund kenn ku nekk ci ñun yaay gëstuwaat sa bopp càmbaraat sa bopp xool ba xam melokaanu gaa ñooñee am nga ca dara wala déet su fekkente ne yaa nga ca yoon wa nga soññeeku gën a góorlu te yëg ne yaa nga ca yoon wa su fekke neko ci won nga wajjat yeddat sa bopp wat ngir meuna am lolé ñoña amon waye ci kaw nga melo woo melokaan nga xamne mom lañ won ba am ñam am moy tem bi nga xamne ci liñu bëgg waxtaan non yi lay tëddee insha allah rabbi kiñ ci bëgg andal nga xamne moy def waxtaan bi moy serigne bashirou mbakke abdul karim ñu gën min min ci serigne bashiru xelkom jotaay bi min nako ak yeneeni jotaay xam nañ ko muy doomi dekk bi di mbokum serigne bi ah, di ko xamne yit fi nit ñu baax ñepp di jaar la jaar muy jang alquran ba wat ko bind ko jang xam-xam ba am ci lu mën jarño ci ak dundum dunduk adunaam ci diineem waye xam lu ci lo xamne dana ci mën jarigne te lolu moy li ëpp solo ndax nit ki la yam ci mom moom rek la engagé waaye la ëpp solo dëgg-dëgg mooy muy jariñ jaami yàlla yi moom nag bokk na ci ay yëngoom euh, di tisaare xam-xam yor ay daaray alxuraan daaray xam-xam naka noonu jataay bii nga xam ne ñu ngi ko fi dalal tey yàggees na ko fee dalal waaye am na yeneeni barab yoo xam ne danañ di ko fa dalal lu baree bari muy tisaare xam-xam ci anam yu sell waaye bokk na ci ay yëngoom ku ne xam na ni imaamul jumu'a la ci jumaa ji nga xam ne moo nekk ci corniche di jumaa jooju nga xam ne Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Salih moo ko liggéey kon ay yëngoom daal dara génn ci diine dara génn ci njàngale Serigne Touba kon moo bëgg waxtaan ak ñun ci tomb boo xam ne am nañ yaakaar ne bu buñ ko digloo taataan bu baax teewlu suñuy xel te jublu cee jariñu insha allahu rabbi kenn ku nekk ci ñun dana dolleeku ku fàttewoon da nga fàttaliku ku xamutoon da nga xam ku xamoon da nga dolleeku incha allah rabbi kon tomb boobu ci la sëriñ Bachiru bëgg a waxtaan ak ñun ñu fas ko yéene jox kàddu gi te bàyyi ko xel te ñaan sunu borom mu defal ñu kàttan dañ mën a am ak dégg ak topp ci biir jataay bi incha allah rabbi kon sëriñ Bachiru bismillah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin سيدنا ومولانا محمد المكي وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نتمبلي سنوي كادوتي سنت يالله جلتي صلى الله عليه وسلم دندوكيل bokk yu tedd yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di sant sëriñ Cheikhouna ci eh, waa lal laltaay boobu mu def ndax wax jum doon dëgg rekk lañ ca sonn am na góor gu daan wax ni wax du bët waaye day fattu moo tax waxu xam-xam bu mu doon lañ ci soxla mooy ak déglu ak bàyyi xel mu mel ni tey danoo ñëw ngir waxtaane tomb bu am solo wala nafar tomb bu am solo nafar nag lu am solo la ci kuy jàng ndax fët bañ a am am na gone bu ñëw ci sëriñ bi sëriñ Saliou foofu ci xelkom mu ne ko booy jàng dangay ngay nafar li nga weesu di déglu ñuy jàng di ko jàngale boole ci ñett yooyu boo ko boolee fàtte du am fët du am ñàkk dégg du am tey nu ñëw ngir nafar ak taalib ak al mooy ak taalib mu doon baat boo xam ni dafa mel ni baat bu yees la waaye nag diine rek lay fekk ak taalibe du gan ci diine waaye jëmmi baat bi rek moo yees waaye woote yonente yi daan woote moo ñëw ba agsi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ba agsi ci Serigne Touba mu di ko jàllale moom it lan fas yéene di dund di ko yeesal fu waaye da di bu ñu nee ak taalibe nit mën naa jàpp ne day lu yees lu wuute ak diine yi ñu xamoon mbaa mu wute ak jëne yoon ci bi sama ji ñu xamoon waaye fekk du noonu aw tur rek woote yi yonente yi daan woote nag mën naa woote ci ay melo nii waaye biir bi ak la leen tax a jóg moom lenn daanañu wuute nag ndax dañoo wax ne yonente bi yàlla mas a yónni julli moom farataal na ko ci yow woor noonu waaye nag façon woor bañ daan woor ak julli gañ daan julli nag am na woote am na woote ak suñ xeetu jidi gi ak suñ ko xeetu kër gi dina am tuuti woote waaye ma jubloo wax ne yonent yëpp ñoo bokk lu ñuy woote lañuy woo nit ñi jëme leen mooy takkee xolu nit ki ak yàlla la leen ñor mooy takkee xolu nit ki ak boroom loolu mooy hadaf bi leen tax a jóg dafa amit ñu leen doon ci woote boobu yi muy boroom xam-xam yi ak nit yàlla yi mu am ñu leen wuutu ci seen woote boobu yi muy boroom xam-xam yi ak wali yi ñoo ñiit kon ginnaaw yonente yi nañu daan wootee dafa wuute woon kon yell na ñoom itam seenu doxin mel ni lu wuute ci kaw ay ngir ak i tariix waaye fekk ne la la la daloon ñee moo leen dal kaw gi lu mu nuru nuru lu wuute ñoo bokk fenn fu ñu jëm ñoo bokk benn jubluwaay buñ jublu lañ jublu lépp nii mooy takk nit ki ak borom kon yonente yi la leen taxoon a jóg mooy leeral nameelub yàlla ñi leen wuutu muy boroom xam-xam yi ak wàllu yi li leen tax a jóg ñoom itam mooy li yonente yi doon woote leer ci boppi nit nit ñi ci def ñëpp it am ab cër ci woote boobu cër bañ ca am mooy war di labiirente ci seen biir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni ad diinu nasiha yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci xadis bu wér ne ad diinu an nasiha diine mooy laa ñu ne ko ku ñuy laa mu ni yàlla akub yonenteem ak téere bi ak kilifay jullit yi ak mbooloom jullit lillahi wa li rasulihi wa li kitaabihi wa li rasulihi almuslimina wa ammatihim laa biir li muy tekki mooy won nit ñi lu leen di jariñ tey ak ëllëg te ki koy def it li ñu soxla ci moom mooy na ko def ngir jëm yàlla waaye bu mu ci sàkku dara jamono bu ne damay wax ni laa biire am na foo xam ne bu fa àggee rek am na lu ci dugg dund ak laa biir nit bakkanam daf koo jege saa boo jógee ngir def lu baax seytaane jóg na ngir yàqal si la bakkan jóg ngir yàqal la adduna jóg ngir yàqal la bànneex na moo tax nit mën naa jóg jubloo laa biir sax joxe ndigal ñu gàntal ko bu meree bay xuloo mbaa muy xeex meralatul yàlla meralatul laa biir waaye bakkanam mën ngaa joxe ndigal doon laabire nit mu gàntu nga mere ca noo xam ne yàlla day daal di génn bakk na faris moo tax laabire jamono bu ne laabire lay tekki te it jërul xët xët laabire ba ca gën mooy nit laabire ci aw melo jëkk muy laabire ci ay wax maanaam li ngay li nga bëgg a dugal ci bopp nit ñi nga jéem koo mel jëkk nga di ko wax loolu mooy laabiré bi gën ci laabiré bi te mooy li yonent yàlla Shuayb waxoon ni wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum an mooy bëgguma di leen digal dara ba noppi ngeen séen ma ma ñàkk ko def mbaa ma den tere dara ba noppi ngeen di ma ci seen kon labiré gi gën ci labiré mooy labiré ci jëf ci aw melokaan te mooy li ngay dégle nanga nga fexe ba jëkk ko mel li ngay tere na nga fexe ba jëkk koo bàyyi ba boo ko xasee def nag wàcc man ihtada fa innama ya li nafsi ku ca jaar boppam ku wàcc it boppam mu mel ni kon boo defee loolu wàcc nga nit ku ko jël boppam la ko jëlal boo ko fa bàyyee it boppam la ko bàyyeel ndax jikko ju rafet ji diine di digle yonent yi daan ko digle Sëñ Tuubaa ñëwoon di ko digle bu ko nit jëfandikoo la mu koy jariñ bala kenn dana ko ko jariñ waaye jikko yi ñaaw yi diine daan bañ yonent yi daan ko tere Sëriñ Tuubaa ñëwoon di ko tere ka ko jëf bala moo wàññi kenn dara njëkk a wàññi la muy wàññi noppi kon sunu borom lépp lu mu digal nit ki ci alxuraan muy ñaari xeeti ndigal yii benn ndigal bi mu digal la ko mu jëm ci boppam moom lañ tuddee al ibada ash-sha'airiyya mooy jaamu yàlla bi nga xam ne dafa dox diggante nit ki ak boroom nit amu ci ab cër jaamu yàlla googu ku ko nit ki defee boppam la ko waaye defe ko yàlla ndax amul yàlla njëkk ndax sunu borom dafa wax ci benn xadisul qudsi bu abu dhar nettali jëlee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni yaa ibaadi innakum lan tablugu durri fa tadurruni wa tablugu nafci fa tanfauni mu wax ni jotu leen sama lool ma naanoon waaye jotu leen it sama njëriñ ba mën naa mel ni kon jaamu gi dox diggante nit ki ak boroomam bu ko defee boppam la ko defal waaye amalu yàlla njëriñ jaamu gi la suñu borom nga war koo def sa diggante ak doomu aadama yi loolu it li wolof di wax moo ci am wolof yi dañuy wax ni kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waaye def bopp mu mel ni jàmm yàlla la suñu borom digal nga war ko doxale sa digganteeg nit ñi boo ko yëg ci sa jëmmi bopp la dellu siwaat kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waaye def boppam te loolu wolof dafa firi alquran rek ndax sunu borom wax ci alquran ni man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha moom la wax ne dafa am mag ñu toog ak Sëriñ falu am na ci mag moo xam ne dafa doon ko jàmbaare ci dégg wala te mën a alxuraan ñu laaj ko ne ko ana nooy firi wala wala laaxiratu xayrun laka min alula mu daal di wax kooka ni ko wala laaxiratu seng yu màggat yi la sëriñ Fallu mujj may nga defal ci sa kër gi xayrun laka mu ngeen fopp ci yow min alula ci seng jàmbur yu yees yi nga sàccoon ñu doole ci ba ngay bëgg léegi mu daal ne ko man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha noo koy firee ñu ne sëriñ Fall ni ko loolu moom bàyyil ma firil ko ko daal ne ko man amila ku tibb saalihan tibb nag fa alayha ci kawam la jëm mu mel ni ba tey dafa bokk ci jikko yi nit yàlla bindee ko doomu aadama lépp lu mu coobarewul boppam di ko def dana ca àttan lu ne waaye saa bu doonee ndigal bi teg ko ko rek dootu ca àttan dara loolu tabiya la bu suñu bindee doomu aadama yàlla nag ci xam gum xam jikko yi doomu aadama boobu ak xër gum xër ci jariñ doomu aadama boobu moo waral mu doxee ñoom ñoom ci seen jikko mu ànd ak ñoom ci seen jikko ni la ikraha fi ba tax na diineem ji li mu koy fonk fonk bëggul ñu forcé kenn ci mu dugg ci la ikraha fi diin qad tabayyana rushd minal na na dëgg leer rek caaxaan leer ginnaaw dëgg leer rek caaxaan bàyyi nit ñi ñu tànn rek ñu tànnal seen bopp mu mel ni kon sëriñ ñi tasawuf yi tabia boobu bii muy tabia doomu aadama boobu muy lépp lu mu tànnal boppam da cay man lu ne boo ko xasee tànnal dara ba muy nuru doole jëfandikoo doole du ca man dara dafa mel ne dañoo amul dégg rek ci tabia doomu aadama amul dégg it ci alxuraan loolu moo waral ñu jël baatu al iraada iraada li muy tekki mooy bëgg ñu jël baatub al iraada lal ci seen mbir seenub taalib yi ba nga xam ne dafa ñëw di sàkku si ngërëmul yàlla ci ñoom ñu tuddee ko al murid loolu ahlu tasawuf ci seen jëm bopp ñoo déggee noonu diine déggee noonu doomu aadama yi moo tax ñu jël baatub al iraada tabax ci seen mbir jël taalib bi nga xam ne dafa sàkku si ngërëmul yàlla ci ñoom tuddee ko al murid mu mel ni kon almuridiya te mooy ak taalibe gi nga xam ni moom lañu tànn tey ngir waxtaane ñu ngi bàyyi ko ci baatub iraada baatub iraada rot na ci alquran ay yoon dikk na ñu tëggee ko tëggiinu mudaare dikk na ci alquran suñu boroom tëggee ko tëggiinu fi'lul maadi iraada li muy tekki mooy bëgg ak neex sunu borom leeral ci alquran ni am na ci nit ñi ñoo xam ni seen bëgg-bëgg bépp dañ koo aj ci àdduna képp am ñoo xam ni seen bëgg-bëgg dañu koy aj ci li leen yonent yi doon jàngal muy kër geneen goo xam ne mu gën bii muy alaaxira mu wax ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al dégg naa ci benn kasetu Sëriñ Fall lu muy wax ni ñépp ñëpp ay murit lañ daldi nag ñaari murit yi ñoo am murit bii nga xam ne àdduna képp a ko ñor ak murit bii nga xamante ne yàlla képp a ko ñor waaye ku ne rek am murit la minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul axira noonu la suñu borom waxee ci alquran waaye mu wax ñi nga xam ne nag dañoo bëgg àdduna yi kese kese kese mu am lu mu wax ci ñoom loo xam ni kuy jóg ni ab murit nga war ngaa dégg kàddu yooyu ngir nga moytoo doon murit booba murit bee suñu borom di ŋàññi ci alxuraan ndax suñu borom dafa wax ni koo xam ni sag iraada sag bëgg-bëgg lépp ci àdduna képp la jëm man kaana yuridu alxayaata addunia wa zinataha nuwaffi ilayhim amalahum fiha wa hum fiha la yubxasun nee na képp koo xam ni sa jëf ji ngay jëf dunduk aduna képp la ci ñor lépp lo def dina la ko fi jox ba ma sëkk ci ci aduna du ma la ci wàññilal dara du ma la ci la dara waye nak lam ci tek moy ulaiikal alladina laysa lahum fil akhirati illa an nar waye ki nga xam bëgg-bëggam dépp ak yëngutom dépp ak jëfam yépp da ko jëf ci aduna kep tax mu diko ko jëf danañ ko ko fay fi ci aduna duñ ko wàññil dara ci akpay waye nak nag ëllëg li amu fa lu sax loolu nak kuy jóg di doon murit war ngaa bàyyi xel de mooy too doon murit boo bii sunu borom wax noonu ci alxuraan delluwaat wax ci benn ay man kaana yuridu la ajilata ajjalna lahu fiha ma nashaau liman nurid koo xam ne sa jëf adduna mu adduna mii rek nga ci bëgg danañ la danañ seet li nu neex ci lu ñu la mën a may ci adduna ñu may la ko taxul sax ki bëgg àdduna am àdduna waxul loolu waaye dane képp koo xam ne sa sa yëngatu lépp àdduna nga ci bëgg danaa seer la ma ca la ma ca neex mu nag mu teg ca ni summa ja'alna lahu jahannama yaslaaha masmuuma madhura kon ku jóg di doon ab murit war bàyyi xel ñaari murit yooyu nga seet ci di nga tànnal sa bopp waaye mu andi iraada ci siixatul maadi waaye nag wa man araada al axira wa saa laha saayaha wa huwa mumin koo xam nag jëfam ëllëg la ci bëgg def jëfi jëfi jëf jëfi alaxira ànd ku ngëm fa ulaika kaana saayuhum maskura mu wax ne ñooñu nag seen jëf lu ñu sant la te mooy lu ñu nangu la te dañ leen ci fay fay gu am solo kon yàlla ñaari iraada yooyu mu waxoon am na ci yéen ñu bëgg àdduna am ci yéen ñu bëgg ëllëg dafa dikkaat nañ ñi ñi bëgg àdduna kese ñi nga xam ni bëgg nañu ëllëg yi mu tagg leen loolu ba tey bind la bu ñu war a bàyyi xel mu am nag ñeneen ñoo xam ni seen bëgg-bëgg bépp dafa jëm ci yàlla ngërëmu yàlla képp moo leen taxaw na jóg ñooñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon ko xër ci gindiku mbooloo am ci kilifay Quraysh yi ñoo xam ni day am yaakaar ci ni bu ñu jubee danañ jubal mbooloo bu ñu duggee ci diine ji danañ duggaale mbooloo ngir kilifa li ku ñu wax Uyayna ibnu Hisn am mbooloo mu àndal ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa fekk fa ñenn ci ahlu suffa ñenn ci saxaaba yi waaye ñu sol col gu yemmaay ku ci mel ne Salman Farisi sol ay col yu yemmaay ba noppi it mu mu tilim ñaq boole ñooñu wax yonente bi ne ko waaw ndax ñii seen xel yi xatalu la ne ko nag ñii foog nga jël leen ci jataay bi ngir ñu ñun ñu mën fee toog wala boog danga ñu wutal suñu jataay bopp wutal leen seen jataay bopp waaye ñii ñoom duñ mën a bokk ak ñoom jataay yonente bi xir gum xir ci ñu gindiku ak xam gum xam ne buñ dugg see mbooloo mën nañoo dugg moo taxoon mu dem ba ittewoo def loolu bëgg a dàq ñun mbaa sax mu wutal leen ab jotaay toogloo leen fa eh, te ngir mën a recevoir ñi waaye suñ borom wàcce ay tere ko ni ko wala tatrudi alladina yad'uuna rabbahum bilxadaati wal ashiyi yuriduuna wajha ñi nga xam ni dañu nekk fii ci jàkka ji di jaamu yàlla subaat ngoon di ñaan yàlla subaak ngoon bu leen dàq te jubluwuñ ci lu dul bëgg ngërëmul yàlla bu leen xalaatu dàq mukk ci sa jataay yemul foofu mu indiwaat beneen aaya ne ko sax na na nga muñ sax wasbir nafsaka maa alladina yabdaxuuna rabbahum bilgadaati wal asiyi yuriduna wajha ni ko sax na not sa bakkan sax muñ ci toog di jataayoo ak ñooñu ñi nga xam ni dañuy nekk ci jàkka ji di julli di woor di sikkat di ñaan yàlla suba ngoon te jëmmam képp tax leen a jóg loolu lu mat ci bàyyi xel mag am na ci am na ne mag nekk li ne sëriñ sëriñ Fallu comme doomi sëriñ Tuubaa yi ñuy doxe nii nga xam ne gisaa nit ñi dañuy dema dema dema dem ba xatal leen ba mu xaw a ëpp nag ñu mujj ni ñëpp génn loolu ku leen xam dag ko xam ci ñoom wax nañu sëriñ Fallu toog na ba jëfee xat xat xat ba ëpp mu ni na ñëpp génn ba ñëpp génne mu daal toog daal waaye koo tuuree ki leen yebal mu ngi ne gumm ci seen biir di seen ba nu may def nu may def daal ne ne ñëw ne na ñëw koo tuuree ki leen si yebal mi ngi ne gumm ci seen biir di seen ba xam nu may def ak nga xam ne ñoom jamono bu ne luñ jamono bu ne rek alxuraan day teew ci seen xel jamono bu ne day ci seen xel suñu saalu benn bi wax naa ko ma ni ko man de damay am loolu da ci yow ci coono bi ngay sonn rek ni ñu lay sonal mu daal ne sàllaaw bu may wax ne na ñëpp génn bu boobaa du ma ci ma du ma mën a seet dama ci mën a tuddal dara daal di waaye saa ko waxee de nit ñi bu ma leen séenee ñuy comaatu ci saabu cinq bi dama leen di yaram ba sama rafet di bëgg a tur ndax xam naa ne fañ jógee nam ak li ñu ci daj ci accepté te lépp Sëñ Tuubaa jaral leen ko te wóor na ma ne lu mu leen jaral rek war na maa jaral ko gis-gis boobu gis-gisu ñi nga xam ne dañoo jóg te yàlla képp tax leen a jóg na nga leen yaatal ci say jataay waaye bu leen xalaat dàq loolu la yàlla waxoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñi ñu daan ci dund mu mel ni kon irada boobu bii ma mujj tudd rek te mooy jëmm yooyu nga xam ne dañuy jàng alxuraan di jàng di sikkar di ñaan subaak ngoon te yàlla képp tax leen jóg iraada boobu ci la tasawuf wéer ak iraada muy taalibe gi ñuy wax ci tasawuf ci foofu yi lañ ko wéer muy nit koo xam ni dafay jox yàlla boppam guddi bëccëgam subaam ngoon waxtu yépp mu jox ko yàlla ngir bëgg ngërëmul yàlla iraada boobu ma mujj tudd boobu la ahlu tasawuf sose seeni tarix boobu it mooy bi sëriñ bi wootewoon taalibe boobu la wootal muy nit ki na ko yàlla ñor na ko ngërëmul yàlla ñor ndax suñu borom dafa ci wa ridwaanu min allahi akbar ngërëmul yàlla mooy li gën a mag kon ka gën a gudd am xel gën a rafet am xel mooy ki nga xam ni dafa fekk la suñu moo gën a rëy mu dem moom diir lool ñoom dañ doon diir ngërëmul yàlla di ko diir lool nit moo tax sëriñ bi li mu wax إذ المريد لا يريد أبدا غير رضا الرحمن حيث قصده أب مريد بيم صحلا موي كيغا خم دو بغ لودول غرمو يالا فم مانا جوغ كون بني الطريقة المريدية تي إرادة بوبي لنكو أسكنا لكو سسنك من طريقة fondé ko lu mat di nafar rek di ko bàyyi xel ndax fët daa yomb nit ñi mañoo ñoo dema dem ba ni ni yëf yi jaxasoo ñii di takkaloo di def ay daayira ñii di takkaloo di def ay mbootaay ñii di takkaloo woote lii ñu dem a dem ba jàpp ne lii ñuy seen mooy ak murit ba xaqiiqa ba ñu ëmp leen moo tax lu mat di nafar la fu ñu ak murit li ko fonde mooy ñett yii fonde diine liimaan ak lislaam ak lihsaan ñett yooyu mooy li sos tarixa mu jamono bu ne it nit di ko bàyyi baax nit nay jël liimaan di ko nafar bu baax nit nay jël lislaam di ko nafar bu baax nit nay jël lihsaan di ko bu baax ngir ak muritam mën a dëggu mën a wéeru it ci wéeruwaay bu dëgër kenoon yi nga xam ne moom la sëriñ bi samp ñu taawu ko ñu taawu tariixa bi ñu taawu ak murit ak taalibe mooy xam-xam ak jëfe xam-xam ak jaamu yàlla ak ay teggiin ak ànd ak sëriñ bu bu bu bu bu dajale sëriñ bu dajale bu dajale xam ak jëf ak jaamu yàlla ak i teggin nga ànd ak moom ci sarti murit ci keme yi fonde murit la bokk kenn yi ko fonde moo xam ak jëf ak jaamu yàlla ak ub ab yar ak nag ànd ak kilifa goo xam ne yooyu dajale ci moom mu tënk ko ci benn bayit ne alayka bil ilmi wa bil ma taaddubin murafiqan cheykhan jama loolu li ma wax moom la sëriñ bi tënk ci bayit woowu muy xam ak jëfe ak jaamu yàlla akub yar ànd ak sëriñ bu dajale yooyu nag kon taalibe bi sëriñ bi andi dafa wuute ak murit yenu jiitoon ndax murit moom bu ñu ko waxee ci tasawuf rek taalibe tasawuf mu ne murit dañ koy waxe ndax gis nga sëriñ bi di wax ne qad axbaru anna malaika aljalil tabki ala almuridi in kaana akuuf بعد وحين فانظره في جواهر المعاني لشيخنا المعظم التجاني لقي فوف لفي وحين وخنا من الملائكة مرد ببودنا أب لك ببقى لك ملائكة لنجي جوي نجير يرمك نجير خمي دو أغ وهي مجبل وحين كن دفدونا على متنون وهي أغ مرد تسوف طالب تسوف مرد له وهي مرد تسرين بي دفو wuute ak yu njëkk yi ndax yu njëkk yi xaj na seen murid gépp ñu ngi ko daan tënk ci dund ruu kese kese kese kese mun muy dugg ay xalawaat yu amatul sikarloo di jàngaloo di la julliloo di xamante ni e, seen iraada gépp ñoom ñu ko tënkoon ci alxayaat ruuxiya dund ruu kese waaye murid gi sëriñ bi andi du loolu kepp kepp waaye du nag ku gëm màdd rek matériel rek muy liggéey adduna képp ñor la li nga yëngatu lépp la mbirum adduna ba nga fàtte mbirum ruux fàtte mbirum xam-xam loolu du murid gi sëriñ bi andi taalibe gi mu andi dafay sonne ci yar ak ruux ci ak jaamu yàlla di sonn ci yar aw yaram ci tàggat ko ci liggéey di sonn ci yar ak xel ci suuxate ko xam-xam ñett yi mooy murid gi sëriñ bi indi li ci gën a ñor ci ay kenoom mooy yooyu mooy day sonne lool ci ak ruu ngir mu mën a takkoo ak boroom waaye muy sonn ci am xel ngir mu mën a am xam-xam muy sonn ci aw yaram ngir mu mën liggéey moo tax ñoom ñii nga xam ne ñoo nu ko jàngal muy doomi Serigne Touba yi ñu ngi Serigne Serigne Saliou daara ji mu daan sos daara ji daan sos daf koy sose xam-xam dana fa indi jàngalekatu xam-xam fa indi jàngalekatu fa matériel ngir liggéey mu indi fa ab fajukaay ñu di leen faj muy toppatoo ay yére ngir ngir ngir gone yi nga xam ne kon yaram bi lu mu laaj dana ko ko jox ruu gi lu mu laaj ci xeetu jaamu yàlla mu jox ko waaye xel mi lu mu laaj ci xam-xam dana ko ko jox murit boobu nag mooy bi nga xam ne bu bu bu dundee ci noonu màgg ci mooy aji insaan kaamil nit ku mat sëkk ki soxla woon tam jafe ci murit googu yii sëriñ bi andi ci la mën a jaar te mooy dëgg dëgg diine islam muy nit ki fokk mu yar am xelam ci xam-xam fokk mu yar ak ruuxam ci ak jaam yar fokk mu yar aw yaramam ci liggéey benn bu ci manqué nag manqué lay teg moo tax sëriñ bi daan wax ne bu ngeen xëyatee na ngeen jiital jaamu yàlla teg ci nangoo liggéey liggéey jàppe ndigali yàlla yi muy ab sëriñ te bañ a jàppe aw sant muy ab sëriñ na ngeen di wéttilikoo ndigali yàlla yi te bañ di wéttilikoo jëm ku bëgg a texe fii ci àdduna da ngay nangoo liggéey ku bëgg a texe ëllëg da nangoo jaamu yàlla lépp daf koo teg ci liggéey ak jaamu yàlla liggéey ak jaamu yàlla Sëriñ Saliou daan ko wax donge yi loolu di leen wax ni leen fii lii ma leen fi indee lépp ci la yar yar bi ci la njàngum alxuraan mi ci la njàngum xasida mi ci la liggéey bi ci la boo ci bàyyi nag boo génnee da ko gis mu daan misaal ak tarbiya ni muy mate ci ni leen mi ngi mel ni nga bëggoon a tàngal ataay da ko daan misaal ci ni li tax lii mu leen di digal yépp fokk ngeen boole ko dara doog a mat mu misaal ko ci ne mi ngi mel ni ku ci bëggoon tàngal ataaya ci yéen ndax boo amee ataaya kese kese kese li nga bëgg amagoon nag ñu ne ko déedéet mu ne nga amee ataaya ak suukar amul ndox nag ñu ne ko déedéet mu ne boo amee ataaya ak suukar ak ndox te amoo furne boo ko teg nag xal yi ñu ne ko déedéet sottiwul mu ne boo amee yooyu yëpp te amoo kaas yoo ko xellee nag ndax sottiwul nag yooyu yëpp nii kon mu ne li mu leen di digal ci ak tarbiya benn par benn bu ci ne dafa am lu muy représenté ci biir murid bi moo tax sëriñ bi li mu fondé tarixa bi noonu muy xam ak jaamu yàlla ak nangoo liggéey loolu bu ci nit bàyyi rek dana ko gis dana gis fa manqué moo tax bari na ku manqué bari na kuy jàmbat te fekk ne la muy jàmbat mbaa la mu moo ko teg bopp ndax mbir mu mën a doon nga xool ya ko dajale ko mooy tax nga am la nga bëgg ca lool waaye bu ca manque bu ne manqué la tekki mi ngi ne ne bool boo bëgg a def ndox ba nag mu bënn moo tax di ko nafar lu am solo la sëriñ bi loolu lii mu sosee tariixa bi muy jikko yooyu bi mu ko wootee ñi jëkk a ñëw jaayante si ak moom dañu doon jaayante ak moom ngir jaaral ko ci yoonam woowu yi yoon woowu mu ret muy boo ñëwee na la yàlla képp ñor na la ngërëmul yàlla képp ñor mu jaayante ak yow ci ni ngërëmul yàlla loolu mu la ñor ñu daan jaayante ak moom ci loolu dégg ndigal ak bàyyi tere ak ngërëmul yàlla képp ñor la nettali naa ko ay yoon Cheikh Ibra Serigne Bassirou mooy mu nett li ci Minanul Baaqil Xadiim ni Cheikh Ibra ko wax Cheikh Ibra ko wax ko man bu may jaayante sa baay dama ko ne dama bëggoon sëriñ bu mag sëriñ bu ma a eggale ci yàlla ma bëgg ak jikko ya ma soxla ci moom su ma ko gisuloo woon lu weesu gis ab bàmmeel ñu ne ma moo nekk fii la ma bëgg sama pas-pas dana ma ko may ci moom ne sëriñ bi ni ko man de su ma gisutoon dara lu bokk ci yonente bi sallallahu alayhi wa lu weesu ñu ne ma asaman si ko daan tim ci suuf sii la daan dox li ma bëgg sama pas-pas man ma ko may ci mu ne ko acca mu ne ko acca mu ne ko kon nag da ngay ak man ci dégg sama ndigal ak bàyyi samay tere ak bañ maa soxlaal fepp pepp ci aduna waxuma la nag kër waa kër lu mat di nafar la di ko fàttali ko fuñ toll xam buum gi nu takkee ak Serigne Touba ba nga xam ni fu mu xaw a firiñ ci ko ñu xam ko bu boobaa dina tax li ñuy wut am gi yomb la ndax yàlla andi wul nit ñi ci kaw suuf ngir sonal leen andi andiwu leen ci kaw suuf ngir ngir ñu tum andi andiwu leen ci kaw suuf ngir bundu xataal leen waaye daf leen andi ngir ñu taxe taxe mat sëkk taxe googu yi nag daf koo lal ci ay tomb yoo xam ni fokk nga teg tànk foofu taxe googu doo ko mën a doomu surtout ab jullit sun borom daf ko waajal ngir mu war a taxe adduna taxe alaxira am xel mu dal xel mu dal nag mënta am fenn fu dul ci diine islam ala bi zikrillahi tatma innul qulub ndax ci yàlla rek ci la xel di dale waaye xel du dale ci matériel bu bari jamono bu ne ñuy gis ku xaru bàyyi àll ju bare bari te la ko tax di xaru mooy jafe-jafe àdduna am na benn benn moodu moodu boo xam ne na ab tubaab daf ko may ab oto ne na ma xëy di fomp oto bi di ko defaraat mu di ma séentu ba mu jàgg mu waaw bi ma may da nga ciy bëgg fi mu toll ne nee na mu ni ma man bànneex laa xamatul fu ma koy jëlee ci àdduna ni ko man mënatuma am bànneex daal ne ko bu dee particulier yi am naa ci lu mat ñaar fukk ak bu dee ay kër nii am naa lu mat ay sato yu baree bari daal ni ko oto bu ñu liggéey ci réew mi ci ñi ñu koy jëkk a yëgal laay bokk ba ma jënd ñi ngi may waaj a jaay oto boo xam ne juróom benn seeni million waaye taxul nag mën ci am bànneex bànneex xawma di jële loolu li muy tekki mooy li yàlla wax ci alxuraan lu mat di bàyyi xel ala bi zikrillahi tatma'innu xulub nit ki lu mën am ci àdduna bu manqué yàlla manqué na lépp waaye ab jullit it na fexe ba yëg yàlla bu ko yëgee daloo ko xel li nit la nit ñi doon xel yow di ko wuti mooy ñëw fekk ci ko fi mu nekk te Sëriñ Tuubaa da ko dund wone ko te képp koo xam ne day ñaan bi mu la jaaralee jaar ci sa bopp moom moo wax ne farra ilayya ma ilayhi naasu farro la nit daan daw di ko wuti loola moo daw wut si sëriñ Saliou ma benn bis ma waxtaan ma ne ko ma ne ko sëriñ bi dama ko ne sëriñ bi de dafa mel ni buntu ba ko suñu ubbi ubbil ba mu jaar dañ koo ubbi ba noppi ñu tëjal mu tegal ma ca ni ma naka noonu moo ku dugg ci biiram waaye nag dugg ci biir li muy tekki mooy loolu mooy xam ligne bi di ko jëm jël ci kem kàttan xam-xam jëfe xam-xam jaamu yàlla ab yar xam-xamu kese boo génnee gis ku ko bari la lool waaye mën naa manqué ñett si jaamu yàlla kese kese mën ngaa gis ku bari kuy jaamu yàlla lu bare bari waaye dafa manqué xam-xam mën naa manqué sax loo mokk rumbu saa bu ñëpp toogee mu dem toog kesu waaye nag xam-xam manqué na ko ak jaamu yàlla it manqué na ko kooku du jàll liñ bëgg nii fokk nga boole tomb yooyu ngir mën a jàll mën a yëg li la sëñ bi doon li la sëñ bi andi nga mën ko yëg kon dañ daal jaayante ak moom ci bëgg ngërëmul yàlla ci ne ko mel ni mag waxe ngërëmul yàlla boo koy sàkku danga koy wut ci ku ne ci lu ne ci fu ne ñoom noonu daan doxee yàlla da nga koy wut ci ku ne ci lu ne ci fu ne noonu lañ daan sàkkoo ngërëmul yàlla danañ ko wut ci julli julli yu bari di ko wut ci woor yu bari di ko wut ci liggéey liggéeyal sëriñ bi yëmuñ sax ci liggéeyal sëriñ bi waaye liggéeyal jullit yépp booleeg ab yar ay teggin teggin yoo xam ni nit ku ne jëmm yàlla nga cay xool benn bis toog nañu ci sëriñ Souhaïbou ñu di ko wax ku demoon fenn di wax ni doomi diw sàngam la daal ni waaye dañ faa jox alal yu bare bare di wax yu mel noonu doon moom mu duggee ca kàddug ne ne bu yàgg de am na ku daan wër di wax ni doomi sëriñ bi la nee na ba Cheikh Ibra fekk ko ñu ne ko kii de nee na doomi sëriñ bi la nee na mu ne ko cas daal ne ah woyof na daal ne doomi diw du woyof waaye nee na bañ ko laajee ba mu xam kam doon dafa yëkkati alal jox ko ne ko dama yamal fi nga war a yam rek lu tee nga am li nga war a am waaye yar boobu lañ daan doxee ak wormaal nit ñi ba nga xam ne koo kii di wax lu wérul sax ni doomi sëriñ bi la ba mu xamee ne doom bi yëkkati na alal jox ko ko ne ko yamal fi nga war a yam rek du tey nga am li nga war a man yar boobu yéen seen jàng ñoom loolu la daan yar boobu yar boobu ak warmaal doomu aadama yëpp hmm. ñu yëgoon ni def ju baax du loo xam da nga koy tënk rek ci diw sàngam nii laa koy defal mbaa diw sàngam nee waaye bu leen xasee génn nga génn ci ñoom dañoo yëgoon ni jëf ju baax wërta tënku ci ni nga ni diw képp laa koy defal su ma ko ko defal du ma ko def mbaa diw mi képp laay def lu baax su ma ko ko defal du ma ko def ñoom dañoo yëgoon ni jëf ju baax ndeke wut sa tënku ci noonu moo tax seen jëf ju baax dafa dajoon nit ñëpp kapp ñëpp lañ daan def lu baax ñëpp lañ daan jëf leen seen lu baax ñëpp lañ daan wax ci ñoom lu baax ngir yëg ne mbindeef yi njabootu yàlla la ñëpp jaam yàlla ñu bëgg ñëpp ngir jëm yàlla di liggéeyal ñëpp ngir jëm yàlla di yërëm nit ñëpp ngir jëm yàlla di leen jox seeni alal ngir jëm yàlla di leen suturaal di suturaal seeni awra ngir jëm di leen wuññal seeni njàqare ngir jëm yàlla jëmi mbaax googu rek dañ daan tudd mbaax googu di def lu baax lu baax lu baax ngir jëm yàlla lu baax rek sore ci nit lu baax rek moom la sëriñ doon jàngale lu baax ngir jëm yàlla nga séq ko ñépp na ni ñu jàpp ndalee yoonu Murid ni ñu ko yombale rek jëbbul naa ci sëriñ bi siyaaree ko ñaar téeméer taal di ko ñaanal mu daal ñaan malaay daal dem lépp yomb ndax biñ demee ba mu doon aada sax mën naa am sëriñ su bari boo taal di ñaanal mu dana ñëw daal di yàkkamte mu jeex waaye nag ndax noonu la yombi ak murid benn affaire fukk njàng ñoom xamoon nañ ni yombut ndax lii sëriñ bi tagge woon saxaaba yi muy tariquhum xasdu wajhillahi duuna hawan seen yoon mooy jëmm yàlla lañu jëblu ci lu ci lu benn bànneex kon loolu du lu yomb lu mu doon nga natt ba xam yàlla ba taxut loolu yombut moo tax sëñ bay jaxate wax na ci ay bayit ni murit dëgg yombul la yombay nga wax ne man ab murit laa te doo ab murit amaana nga gis waaju dox ci murit ba am ay murit nag te kat du murit te it nga gis waaju dox ci murit ba dundam ba xëy jee mu réer murit murit dëgg day dee te deewul ndax li day metti metti dëbbul ak murit maanaam du lu yomb la ñoom dañu jublu wax ni du lu yomb ñu daan dund ak woyof jamono bu ne damay wax murit ak murit li Sëriñ Tuubaa yeesal li mu gën a yeesal ci diine mooy woyof diine def ko bëgg alxuraan jàngale ko yonent bi soññee ko ay yoon am na foo xam ne yonent bi faa wax ni képp koo xam ni fepp peppu ci ak rëy mi ngi ci sa xol doo tàbbi aljana waaye ñaar yi mu gën a yeesal ci tarixam bi mooy woyof ak tabe woyof ak mooy wax ne jamono bu ne nit ñi liñ gënoon ci xëccoo mooy daraja ak alal moom mu ñëw li mu la gën a digal nga joxe ko mooy daraja ak alal léegi lu la nit gën a bëgg lu dul yàlla bàyyi ko muy daraja muy alal ñaar yi nit ñi gën a di moom la gën a digle ku ko joxe te yàlla tax moo tax ñu daan toroxlu lool ñoom toroxlu gi ku ne ci ñoom dana xool ci sa moroom jàpp ni lépp ci Sëriñ Tuubaa moom la ko dénk nga di ko ci moom ba mel ni ku jëm Sëriñ Tuubaa ku ne ci ñoom da ngay jàpp ci sa moroom da jàpp ci sa moroom ne mbiri Sëriñ Tuubaa yëpp a ngi ci moom nga di ko sàkku ci moom di ko sàkku ci moom ba mel ni moom mooy jëm Sëriñ Tuubaa kenn ku ne di ko sàkku ci sa borom ku ne da xool ci sa morom lu ne nga jàpp ne war na la ci moom te doo jàpp ne dara war na ko ci yow jamono bu ne da ngay jàpp ne lu ne war na la ci moom waaye yow waaye moom dara war ko ci yow xaw naa wuute lool ak jamono bu léegi bi ndax léegi daanaka li ñuy dund mooy ku ne nga jàpp ne lu ne war na ko ci yow te yow dara war la ci moom ñoom soxna lañ jël jamono bu ne dañuy jàpp ni lu war leen ci nit te nit ki dara waru leen ci moom dara waru ko ci daal ñu yëg yëg ni yeyoowuñ benn traak noonu sëriñ bi tàgge saxaaba yi ne yaraw na am fusahum duunal wara abad dañ daan gis seen bopp ni ñoo yées ci mbir yi te it benn trang mag ñi it ci loolu lañ daan dund daan jokk lool ak bokk jokkin bi nga xam ne it moom la sunu borom bëgg jokk gi sunu borom bëgg mooy li ngay def nga def ko te yàlla tax waaye nag waxuma jokk bokk bi xew léegi de muy diw ñëwoon na sama ngénte kon danaa dem diw bi ma di di di sarax sa jaale si woon na ma kon dinaa ko jaale si diw jaale si woon sama diw sàngam kon duma ko jaale si diw bi ma amee ngeen si jaaru fa bàyyi naa ko waxuma jokku bokk googu ndax jokku bokk googu damaa ragal imru ul xay si ñoom ña fi nekkoon jëkk yonente bi sallallahu alayhi wasallam boo demee ci ñoom da nga fekk ñuy dundul mel na ñuy dundul mel ni joxoon nga ma ñeenti dërëm démb tey kon dinaa jox ñaar dërëm boo ëllëgee naa jox nangam defal nga ma nangam jëm tey dinaa la ko def loolu bokkut ak diine bokkut ak diine ji yàlla digle bokkut ak li Sëriñ Tuubaa ñëwoon ngir di ko yeesal si waaye li li diine di digle yoon mooy di ju rafet jikko ju rafet nag mooy nga koy nga koy jëkke ngay fexe bay jëkke jikko ju rafet ci lu dul ngay xaar ba nit lebal la ko nga fay ko jikko ji rafet jooju nga jublu ngay leble bu ko lebal nit ngir bëgg mu fay la ko waaye da koy lebal yàlla fayu yàlla rek ngay xool ci lu man na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yónni ngir jikko yu rafet yooyu mu matal benn bis dafa toog ak soxna Aïcha radiallahu anha ay yahud ñëw ñoom la suñu borom wax ni wa isa jaauka xayyawka maa lam yuxayyika bi baatum assalaamu aleykum ji nga xam ne mooy nuyoo jullit ñoom ñu yàq ko dikk ne assalaamu aleykum fekk saam ak daalayte assalaamu aleykum soxna Aïcha dégg ko mënu koo toléré mu ne leen wa aleykum salaam wala yéen itam ngeen dee yàlla na leen yàlla bu yonent bi ne ko mahlan yaa Aïcha mu ko xanaa déggoo li ñu wax mu ne ko enré ah, dégg naa ko waaye nag yàlla yónni ma fii ngir may xasantee ka nga daf maa yónni ngir ma defar jikko mooy bu waxee lu ñaaw yow nga wax lu rafet loolu yi la sëriñ bi doon jàngale mag ñi daan ko dund muy jàngale xudil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jaahil tam mooy jamono bu ne ki dog mbokk ci si dégganteeg moom yow dee ko jokk te yàlla tax bu ne ki lay xañ dee ko jox te yàlla tax jamono bu ne ki lay wàccee yow dee ko yëkkati ngir jëm yàlla sil man xatarak wa aati man xaramak alquran di digle ni wa arid anil jahilin wa arid anil jahilin mooy saa saa boo dajeg nit muy wax luy andi aw ay waxal luy andi jàmm yow ba jàmm saa boo dajeg ak nit mu wax luy indi aw ay waxal luy indi jàmm ba jàll waaw boo génnee ci tali bi dajeeg mbooloo ñu yor ay cours ni la wàccal te lu la Sëñ Tuubaa digal wàccal may leen jàmm xanaa du jël cours ni en ah fait xaaral ma waxtaan yéen sëriñ bi lam digle mooy jamono bu ne saa boo dajeeg kuy wax luy indi aw ay waxal luy indi jàmm ba jàll loolu mooy digal sëriñ bi waaw daan wax idfa بالتي هي أحسن كلا جيل نعم يو نغفو فاية لرافت عيسى مريم ذكران جانجل إن تم يلين كلين تس سين لخو نجور نغين كو جوخ لخو تامون كلا تس سين لخو نجور جوخ كو تامون سن برام وحني ادفع بالتي هي أحسن دل سيد لغن رافت نغفو يجفل تاغنين فإذا الذي بينك وبينه عداوة ka annahu waliyun hamim daal boo ko defee ki nga xam ne dafa mel ni ak noonu dafa doxoon sa diggante ak moom dana mujj mel ni ab soppe waxut ne dana mujj doon ab soppe waaye dana mujj mel ni ab soppe loolu it ñu daan ko dégg di ko jafe ñoom ma ni jikko yooyu ci la leen su borom tàggatale woon adduna nit ñëpp wommatu jëm ci ñoom ndax dañu daan woo nit ñi ci seeni jëf ak seeni melokaan waaye daawuñu leen woo ci seeni wax maa ngi ko nett li bëkk de mboo njaay muy sëriñ Modou Gelo Gel da daan génn di tukki Saalum bu demee it day wàcc rek ci ab dëkk mag ñi dañ daan def noonu wàcc xel mu wàcc ci ab dëkk am ku ko fa romb bu nuyu ko laaj ko fu mu jëm mu ne ko dama doon doxantu rek mu ne ko ana fooy dal fii mu ne ko fii de amaguma fi ab dal mu ne ko tee nga ñëw ñu dali kër ga mu ne ko bisimilah mu ànd ak moom mu dal ci kër ga di def at mu jot mu ñëw dal fa at mu jot mu ñëw dal fa ba dafa mujj mbooloo jëbbali fa ci moom ci dëkk boobu mag mi ma doon nettali lii nee ma dama ànd ak sëriñ Modou ñu ñëw ci dëkk boobu ñu ñëw dal ci kër góor googu yi biñ ñëwee dañoo fekk mu génn waaye néeg bi mi ngi doy waar lool ndax ak taalu moo nekk ci dikk room bi ñu def ci ab doom ba mu fees takrib néeg bi mi ngi lënd ñuul kukk ñoom ñu def seen jëfi murit jël taalu bi génnee ko an doom bi ba mu set ñu bale néeg bi dem wuti suuf su rafet ñu sotti ko fi biñ sottee suuf si daldi di defaral sëñ bi fomp néeg bi ba mu set ñu génn di bale nefare yi ci biti ba mu set ñu toog di ko jëw di wax ni waaw sëriñ bi fii li ñu fi am ci ay taalibe lu tax muy dal ci kër gu ñàng gi mënutoon a dal ci kër taalibe nee bi bi ñu noppee mu woolee leen dama leen a bëgg a wax fi ma nekk ñu leen man de kama amoon démb ak ñàkk du ma tàggaleeg moom tey jii kama amul woon démb it ab am am du ma booleeg moom tey jii loolu mooy façon yarin bi nga xam ne sëriñ bi daf ko daan yar mag ñi ba ñoom dañ daan dalak ñëpp kuñ dalal duñ xool loo doon rek dañuy jëflante ak yow rek ci jikko yaram borom kër ga ba mu ñëwee dañu ko wóor na ma ne li nga def de sàmm kulëre moo la ci bàyyi uma dara lu ma lay fayee lu weesu bis ni ko tey jébbal naa la sàmm kon mu indi ci jikkoom ju rafet li yonent bi waxoon ni nit kenn nit gindiku ci yow képp moo gën àdduna li ci biiram kon jikko ju rafet ñoom ci leen daan jëf leen fekk nit ñi ba dugal mbooloo bay dugal mbooloo te jikko ju rafet jooju ñu daan jëf ba àdduna wammatu wuy si leen yonent bi waxoon na ku ci xadis newoon na képp koo xam ni ëllëg mooy sa itte man kaana hamuhu al axira jamaha allahu samlahu wa jaxala xinaahu fi qalbihi wa atatku dunya wa hiya raxim képp koo xam ëllëg mooy sa itte yàlla dina dajale sa lépp def sa doylu mu nekk ci sa xol te àdduna it day forcé wu ñëw waaye nag koo xam ne itteem jëpp àdduna la yàlla day tasaare ay mbiram fu ne dara ne fa war faa jëli te bu boobaa it du am ci àdduna lu dul la yàlla dogal ñoom kon ñoo dundoon lool yi woote bi nag la daan dal woote yëpp dalagu ko waaye mën naa mu dal ko ci kanam muy njëlbeen gi dina am kàttan lool digg bi mu xaw néew doole mujj ga mu doyadi euh, doyadi ba ci yemukaay waaye loolu lépp nag buñ koy bàyyi xel di ko sàmm di ko aar di ko waggar jamono bu yàlla mën a def muy gën a jëm kanam te Serigne Touba moom la muy def la muy liggéey liggéey na ko ba léegi li ci des sun yëf la ñun ñoo ko war a jariñoo ñoo war a seet nuñ jariñoo liggéey bi seet nuñ ci jàlle waaye lam am na ko ca te ñu jëkkoon a ànd ak moom lañ cay am am na ko ca am nañ ko ca te lii mënu defal ci eh, dalu xel ak takkoo ak yàlla ak bëggante ci suñ biir akub jaxasoo li fekk soppiwuñ njàng njàng dund ba mu daan jàngal rek dara du ci soppi ko waaye nag bu ñu ko soppee nag mën naa soppi ko ndax sun borom dafa ci alquran inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nit ki limuy dund li fek sottiwul wul lako lako lal rek li wolof di wax moy bo fatte wul la la faloon doo faliku waya sa bo fàtte la la falon nag faliku du wess mu la sun borom wax ci alquran ne dalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lu la sun borom defal ci xewal li fek soppi woo na nga daan jëfante moom du soppi ni muy jëfante ak yow mu mel ni ñoom kon jaamu yàlla gu set wecc lañ tënkoon seen mbir di sàkku ngërëm yàlla yàlla boole leen ak mbooloo moo xam ne dañoo ñëw jaayante ak di jaayante ak ñoom di sàkku si ngërëmu yàlla ci ñoom di fab seeni alal di leen ko jox ngir jëm yàlla di leen liggéeyal ngir jëm yàlla waaye saa bu àdduna soppi ko ba nit mën a fanaanee werd tey làqal ci ay projet yàlla dina ko tàggat ay nit ñoo xam ne dañuy ñëw di ko ñaanloo ci ay projet loolu moom mooy mbirum suñu borom ndax Sëriñ Tuubaa jamono bi muy liggéey di liggéey te yàlla képp tax muy liggéey jamono boobu am na nit ñoo xam ne dawuñ nelaw guddi daawuñ nelaw bëccëg ngir di di julli di woor di sikkar di jàmm yàlla waaye mën naa am dañu bokkutoon fu ñu jëm ñoom moom teewul nag nuy am mbégte lool ak di sant ci jamono bii ñu toll gis nañ ni murid yi gën ñoo fabuwaat ci bëgg xam-xam gën ñoo waat ci bëgg lu baax day mel ni gën ñoo encouragé waat gën a soññuwaat ci lool yi ak cant la euh, te gis naa ni wet gone gox bu ak quartier bu ne gone yi ñu gën a fabu di gën a bëgg xam-xam di gën a gëstu mbirum Serigne Touba loolu li seet ni nga am rek nuy am yaakaar ci jamono boo xam ne nag euh, wax lu wéru dafa tasaaroon lool wor bëgg daraja ak alal tooñ bari lool te gisuñu ko ko lijjanti nit ñi di jëkkante ay tabax yu kawe di jëkkante ay immeuble ak oto yu rafet ak woon jikko yu gën jikko yu rafet yi taxoon yonente bi ñëw jikko yu rafet yi Sëriñ Tuubaa jàngale ñu won ko ginnaaw gën a jàng jëm ci waaye lu lépp nag teewul ñoo ngi ngir gis nañ yu fabu lool fas yéene jëm ci njàngaleem Sëriñ tubaab di ko gëstu di ko luñut di ko xañ xañtu fu ñu toll loolu ak cant la ñi am yaakaar mu jëm kanam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 Euh, koor gi bi mu tàmbali ba léegi bis bu set rek ak yeneen yi nga xamante ne ñu ngi ci taxawee fu ñu toll ci wàllu dëkk bi ak liggéey loolu jamono bu ne maa ngi leen ci sant nag di leen ci ñaanal ci béréb buñ teew ak buñ teew jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëriñ Bachirou ñu ngi sant bu baax ci teewe gi ñu teewe jataay bi mel na ni li ñu doon séentu ci moom gis nañ ci lu kawe njort képp ku fi teew te teewlu xamal na la lu bari ci li nga doon dund muy ak talibé ndax melna ni waxtu yi xatna waye ci teunk yu gatt fi nga xamne serigne bi jaar na fa ak ñun moy lim ñu ñëk xamal lan moy ab murid mu xamal ñuko ci ñaari anam yi ko sunu borom xamlé ci alquran muy muridud dunya wa muridul akhirah waye nak li gëna am solo mooy wax nan muridu dunia na ko sunu borom tëkkoo man kaana yuridu alxayata dunia wa zinataha nuwaffi ilayhi amaluhum fiha wa hum fiha la yubxasu la yubxasun waaye nag la leen sunu borom tegal ca wax ja mooy ëllëg yow alxiyaamati al akbar amul dara luñ fay am lu dul sawa wal iyaasu billah man kaana yuridu al ajila ba tey ku bëgg adduna waxaat nañu la ko sunu borom tontu ajjalnaa lahu maa nashaa'u liman nurid waye fa suñu borom di mujj ñu mooy jaar leen ci sawaw jahannam wal a'yas billah kon aduna yi kesse aduna yi kesse lu mata watani ko tàbbi la te melna ni guddi yi ñu toll nak murid bu nafaratul sabab nafarat nafaraat bind yu melni ne yi sëriñ Basiiru doon joxe da nga tàbbi ci kuréel bo bi nga xamne aduna kep leen tax loolu nag mel na ni boo delloo ci fiir yi nga xam ne sëriñ bi raxaloon na ko bu yàgg da nga gis ne ñoom ñu ngi xuus ci biir géej googu te muy àddunay kese wootekat yu bari fi ne xuus nañ ci biir murit boobu te yëguñ ndax àdduna rek a leen yitteel ña ngi koy am nag nu waffi ilayhim amalahum danañ leen jox seen loolee ñu bëgg ba mu doy sëkk na ko suñu borom waxee woon ña ngi koy am ñu nekk ci biir nag mbubbum sëriñ bi waaye doon ay murit yi àdduna loolu nag sëriñ bi mi ñu koy wattandiku loo wan nañu fi sëriñ bi teg ab wooteem te mooy yuriduna wajhallah yàlla képp lañ namm yuriduna wajhahu te mooy yonente bi sallallahu alayhi wa bi sunu borom di wax ak moom ci ahlu sufa ñoo ñu mu tudd léegi ne ko ñoom kat ginnaaw guddeeg bëccëg ñi ngi ci jàkka ji di tudd seen borom namm yàlla képp fexeel ba kon bu leen dàq waaye joxaat ko la leen digal ne ko del taqoo ak ñoom sëriñ mu wan ñu ne sëriñ bi foofu la teg wooteem bi ndax la mu wax mooy ab murit mooy koo xam ne bëggul dara lu dul ngërëmul yàlla bëggul dara lu dul jëmmi yàlla xamalaat nañu it ne sëriñ bi fi mu teg ab wooteem mi ngi tëdd ci iman islam ihsaan mu leeral ko ci anam gu yaatoo yaatoo yaatu te loolu moo delloo siwaat méthode bi mu wax ne ci la sëriñ bi doon wootee te mooy ci la doon liggéeyee te mooy boole yar ruu ak xel ak yaram ndax ku ne xam na ni ruux jaamu yàlla moo koy dundal waaye xel la koy jubbanti mooy xam-xam waaye yaram it lañ ca soxla mooy ñu tàggat ko ci liggéey ba borom ba ñaafuus kon war nañu ne sëriñ bi ci ñettee la tabax liggéeyam bi moo tax méthode bi mu doon yare ñett yi la boole woon léegi nag bu bu juróom benn yooyu daje nit ki ngir mu mën a nekk murid sadiq nee na mooy mu boole al ilmu wala ibadatu wal amalu wal adabu wa murafaqatu cheikhin jaamiin li haadihi ni ko sëriñ bi waxee ci bayit bi fexe ba xam-xam ne ci yow ngay jëfe xam-xam ba nangoo liggéey te làmboo ay teggin waaye ànd ak sëriñ boo xam ne nag dafa dajale lu am solo ginnaaw Cheikhul Xadim ci boppam moo waxal boppam ne na ànd ak sëriñ boo xam ne day dajale yii kon boo ànd ak sëriñ bu amul xam-xam yaa ngi ci njuumte ni mu ko waxee doo àgg boo ànd ak sëriñ boo xam ne jëfewut xam-xamam donte am na xam-xam doo àgg boo àndeek sëriñ boo xam ne nanguwut a liggéey des na boo àndeek sëriñ boo xam ne amuti teggiin des na kon faw sëriñ bi ngay àndal na dajale ñett yi loolu sëriñ bi yee nañu ci dikk na ci bayit wi kon nañ ko bàyyi xel bu baax kon nañ bàyyi xel daal lii ak murit bu ñu nee murit mën ngaa doon bu adduna mën ngaa doon bu àllaaxira waaye nañ fexe doon ñun yu àllaaxira doon nga yu àllaaxira nag moo ñu tënkuwaat ci ne sëriñ bi nattee Balas bi serigne bi am nañ ko teyé ta baña jël balas bi keneen am gudi ñu tollu am na balas yo xamne ci la gaañ di nat di ci pesé muritu nit ki ak ñak doonam ak murit balas yo yooyu amul solo ndax day delluwaat wat seeni relation ak seeni bëgg-bëgg ak seeni seen considérer guñ considérer seen bop kenn ku nekk ne ay serigne bi man buma jappé ne maay bi balas bi may nattee teele bi nit ki kon sama relation sama ak mom ci lay wat waye damay bayyi damay bayyi relation biñ séq seet balaa sëriñ bi ma ciy natt taalibeek nit ki te mooy mu jàng ba am xam-xam di jëfe xam-xamam nangoo liggéey làmbooki teggiin jaayanteeg sëriñ bu matub sëriñ boo xam ne daje ne yooyu su booba mën koo seeral ak taalibe waaye bu ma ko aj nag ci la may dund ak moom wala la muy dund ak keneen wala la muy dund ak sama nawle balaas yooyu amul solo ko ne delluwaat ci nattukaay bi nga xam ne moom la sëriñ bi di natte kon li sëriñ bi jàngale leer na lool sëriñ Bachiru ñi ngi ñi ngi sant suñu borom waaye di la sant di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dal mu gën laa sàmm eh, yàggal la fi dolli la ak wér te gën a leeral sa xam-xam ba nit ñi ubbiku giñ ci am ak safoo gi ci am ak euh, gàttalu giñ lay gàttalu sunu borom defal lu kawe suñu yortu ci liggéey boobu mu mel ne laaj yi xam naa benn laaj moo fi rot wala kenn nit boog moo laaj lu tollook ñetti laaj euh, su ko defee li def ci waxtu bi dafa bëriwut insha allahu rabbi bu sëriñ bi tontoo boobu xëy na bala ñoo jub danañ fi jàllale danañu indil kayit wi jàllale ki war a def waxtaanu suba mawdoo bi nga xam ne ci lay waxtaan su ko defee ñu àgg ci barab bi nga xam ne fi lañuy doge dogee ñaan suñu borom mu defal ñu kooru jàmm laaj bi njëkk bi mooy dafa wax ne damay laaj ndax kenn mën naa am ñaari sëriñ walla maanaam kenn nit mën naa am ñaari sëriñ walla mu ne bi ci des damay laaj ndax ak njébbal dana doy rekk ci jébbal naa la sama bopp wala déet maa nga ne jébbal naa la sama bopp rek yem ca mu la taxaw taxawaayu njébbal wala déet bu ñetteel bi mu ne mu ne ndax waaw mel na nag mbind mi dese naa leer euh, laaj mujj moom mbind mi dese naa leer waaye daal ki li mu bëgg laaj mooy am na ku mu wax ne ndax sañ naa jébbal jébbalu ci sëriñ direct bila wasita maanaam nga xam ne xëy na mën naa am murid la bëgg a wax boo xam ne fekk fi sëriñ bi mu mu def sëriñ bi mu jéblu sëriñ bi mubasharatan du jaarale kenn diggante ak moom wala déet bu fekkee loolu jublu ci laaj waaw ndax ab ndax kenn sëñ naa jéblu ci sëriñ bi rek kon day dindi ab gi mu def ci diggante bi ndax kenn sëñ naa jéblu ci sëriñ bi direct bila wasita ñett mooy ñetti laaj yi nit sañ naa am ñaari sëy wala déet ndax man nga jibril serigne bi direct ci lu dul ngay am waasira sa diggante ak sëriñ bi wala wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bokku mi day laaj ndax kenn sañ naa am ñaari serigne tasawuf day lim xam moy nga jante ak ben serigne doogawut nag ay mbokk ak i wëllëre yoo bokkal jëmuwaay ngeen di dimbalante waaye ñaari sëriñ dafay xaw a mel ni li sunu borom di wax ci di misaal ni ñaari yàlla mënta am law kaana fihima alihatun illa allahu la fasadata ndax bu fekkee da nga jaayante sëriñ bi ne ko loo ma digal dinaa ko def ba jaayante mu ne ko loo dinaa ko def kii digal la toog kee digal la taxaw wóor na la ne ñaar yu mu ko def jafe-jafe rek leen kon fokk nga féete benn boor jërëjëf aywa bi ak njëbbal ndax dana doy rek ci jëbbal naa la sama bopp wala loolu dañuy wax ni dafa am ku mas ñëw ci sëriñ bi ni ko dama bëgg a jëbbalu sëriñ bi ni ko analoo ci jublu mu ne ko xanaa nag bëgg a jébbalu ci yow rek nga di ma digal may def nga may tere may bàyyi sëriñ bi ni nañu woo fere yi fi nekk ñu ñëw da daan jàngale noonu lu mu bëgg a jàngale bëgg ñëpp fekke loolu ba ñëwee mu laaj ko ni ko waxaat li nga waxoon mu ni ko damaa bëggoon a jébbalu ci yow nga may diggal may def nga may tere may bàyyi sëriñ bi ni ko dama bëgg nga xam ne jébbalu de ay wax rek la boo ko waxee dégg nañu ko boo ko jëfee jàpp na ko kon jëblu ay wax la waye dañu koy jëf nak mu doog a mat mi ngi la ni nit ki ni la ilaha illallah muhammad rasulullah dama ni moy contrat bi lay duggal ci société bi waye nak lay tax nak ñu nga jàll li nga wax won werna moy liggey yéen la jox ni la nek liggey sa bu xey nga xëy ci boy gont nga gont waye sa bu ñew ci société bi déposer kayit bañ jël la ñu wax la li nga war liggey do ca do ca def dara day melni bu wer day bo taxé duñ la fay dara li nga war moo tax jëbbalu ay wax la waaye dañ koy jëf waaw léegi lu ci sëriñ bi mu baasharatan bi bi laa waasita xam nga jaayant gi ñuy def nii jaayante ñooy jaayante googee yonante bi sallallahu alayhi wa sallam woote woon gannaaw bu nit ñi doonee ay jullit ba noppi da leen a woowaat ci jaayante kon jëbbalu aw tur la wax ni waaye jaayante la ci jublu te gannaaw bu nit ki jëbbaloo ba doon ab jullit ba noppi la la yàlla woote waatoon ak jaayante إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إذا أنت خسنه دبولة الله أكده ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يقترينه بين أيديهن وأجلهن ولا يحسينك في معروف جاء أنت قلنا أبو لنا أبو لبنطي لنكو ووتي جاء أنت قوغي جاء أنت قوغي بنكو دفع أبو لنتبي صلى الله عليه وسلم بم في dañoo takkatoo ñoom ñëpp jaayante ak Aboubacar dafa mel ni loolu rek mënees na cee déggee ni fokk kon ki fi nekk nga yeeslu jaayante ak moom fas yéene topp ndigal yi ak bàyyi tere waaye mënoo rek ni ka fi jëkkoon nekk jaayante moom kon jeex na Serigne Touba laa jaayante kon jeex na ndax bu doon jeex yonente bi bañ xasee jaayante kon jëratul ñu jaayante ak Aboubacar jëratul ñu jaayante ak Omar jëratul ñu jaayante ak Ousmane te ku fi toog xalifa ko ne rek dañuy jaayante yow. ndax yonente bi noonu ne képp ku dee te jaayante woo dee nga dee jaay kon jaayante ak sëriñ bi direct ah, li liñ gën a xam daal mooy nga jaayante ak kuñ gis koy jaakaar loolu ngay joxe ndigal di la a noppi nag mu doon jëwriñ ci sëriñ bi nga xam ne sëñ woote bi moom sëñ bi woote waaye kii na nga jaayante li comme ni nga xamante ne Abubakar dafay nekk waaye xam nañ ne nubbu ak yonent bi lañ ko joxoon te alxuraan ji jàng la di jàng moom ci loolu yi nga gën koo gën ko jëf jërëjëf mel ni kon laaj ji leer na sëriñ bi ñu ngi lay feddali ñaan googu ñu la ñaanal léegi rek di ñaan suñu borom nangu ko mbokk yi kon programme ëllëg bi liñ ci war a waxtaane mooy ajjana ak ay xéewalam ajjana ak ay xéewalam moom lañu war a waxtaane ëllëg insha allahu rabbi ki war a def waxtaan wi mooy sëriñ Seex Buso moom sëriñ Alxaaji Buso Ndumbe moo koy def insha allahu rabbi kon ñu bàyyi ko xel والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته